bu ko defee réew mi ci boppam moo yëngu te dafa jaxasoo ku yebu ni tekk rekk ba xam lii riir fu mu jëm waaw yenn ti wax yeeg yenn ti tontonte yeeg du ko xaw a jar ndax bari na lu ci am ñuy laaj lu ciy sama position way fekk na duma mës a wax ci kër gi fii wax ni man nit bu ma ko nawloowul duma tontonte ak moom waaw nit bu ma ko nawloowul duma tontonte ak moom looloo tax yu bari yuy am mais am ci yoo xam ne sax man lañuy ñuy attaqué mais ça rien ndax daf ma wóor ni ñi koy wax raw naa leen ba noppi waaw yàlla xam na ko ñoom ñi sant si ñëpp amu ci kenn koo xam ne dinaa la xool ba defa ne naw la nga pour man waaw bu la neexee nag def seen group raggante seeni gannaaw dem woy ñu kenn xamul pour ñu di leen defal propagande kooku seen affaire la moi j'ai pas besoin waaw ndax yàlla ma defal propagande ba noppi waaw ko defee rek ngeen xam seen bopp te ngeen gën taxaw